waaw visite bi nous sommes si kontaan bu baax ndaxte buñ ñëwee gis nañ ne liggéey bi avancé na bu baax a baax a baax step bi wax dëgg yàlla liggéey bi mun neen ko livrer si fin avril 2023 Soyez le travaux adduction d'eau potable ak également assainissement bi lolo, mun ko livrer fin mars Soyez le également en fin février autant pour moi soo jëlee liggéeyu voirie yeeg yooyu ak euh, tali loolu den ko livrer si fin mars donc liggéey bi mun nañ ko xayma si en terme de pourcentage entre 95 vingt 98%. ak pour cent ay travaux de finition rek moom moo fi des c'est l'occasion ñuy féliciter euh, suñu directeur de l'aménagement et des travaux pour liggéey bu mu ci ay bu nga xam ne moom moo ko moom moo ko conduire avec l'ensemble de l'équipe

ñu gunge si bépp fànn donc ñu ngi remercier également di encourager entreprise yu nga xam ne ñu ngi fiy liggéey parce que SAPCO mënoon na tànn entreprise yu nga xam ne li ñuy liggéey du méngoo ak wàllum qualité mais man damay rappeler ne man ingénieur laa te dama liggéey lu bëri si wàllum normalisation képp koy wax normalisation loolu wàllum qualité la dem naa ba doon sax président comité bâtiment bu Afrique de l'Ouest yëpp donc wax dëgg yàlla maa tabax aéroport Ousmane Masseck Ndiaye bu Saint-Louis

réew Baobab première phase bi rek am plus de 500 chambres yu nga xam ne jamono ji yow soo bëggoon réserver foofu fii ba 2024 am chambre te ñoom pare pour lancer beneen phase bi wax dëgg yàlla loolu su amee ak yeneen projet yu nga xam ne ñu ngi ko fii terminer ah station balnéaire bu Pointe Sarène kenn du ñëwee beneen station de la même manière président de la République moom daf ñu instruire ci conseil des ministres du 19 octobre pour que travaux d'aménagement yu nga xam ne SAPCO mu ngi koy def ñu continuer ko si Mbodiène si delta di Saloum bi si basse Casamance n'est-ce pas comme ay Kafountine Abéné ak yeneen ak yeneen donc ñun dañ fi nekk pas pour jël suufu nit ñi déedéet waaye dañ fi nekk pour gunge population bi euh, maa ngi rencontré sànq ni chef de village bu Pointe Sarène mais bu ñu demee daf ñu gërëm nañu ah ñun de auparavant wax dëgg yàlla lu ñu doon wax lu ñu doon wax si SAPCO ak SAPCO jamono ji fu ñu yóbbu ñun den si sant yàlla benn doléance la ñu posé mooy que ñu jàppale leen si wàllum mbali beeg yooyu te ñun problème boobu dañ koy jël à bras le corps wax dëgg yàlla que mu doon euh, sali mu doon euh, Cap Skirring ak mu doon feneen ak feneen ñun bëgg nañ indi ay matériels yu nga xam ne yu mucc ayib mm-hmm. nga xam ne wax dëgg yàlla suñu ñëwee même plage yi à un mètre de profondeur yàlla mun na dogal ay salteg yooyu kenn dootu ko waxati parce que jamono ji sab ko war neen dépassé ay benn tasseuse ay nangam nangam ak yooyu déedéet dañ war a indi ay équipement yu moderne yoo xam ne moom méngoo ak jamono waaw loolu dafa warul am coow xamul lu tax warul am coow parce que foofu du forêt classée comme ni ñu koy waxee foofu zone boisée la bu titre foncier la titre foncier nag wax dëgg yàlla loolu c'est privé yow sa titre foncier kër kenn du la wax noo fay doxale wax dëgg yàlla titre fon foofu damay rappeler ne sapko dafa am 9 hectares de titre foncier maintenant 9 hectares yooyu ñun sapko yow mii di sénégalais soo amee sa projet bu nga xam ne war nga ko réaliser mu méngoo ak cahier des charges bu nga xam ne station balnéaire bu sali teg nañ ko loolu su boobaa ñun

loolu laa bëgg mu leer nañ de xam nga man du ma waxantu man lépp lu may wax dafa day doon lu officiel ñun lu officiel lu ñu am fu nga xam ne jox nañ ñu ko mooy neuf hectares mooy le TF 34 13 MB loolu leen am neuf hectares loolu la sab ko am maintenant ñoom fekkee gis nañ leneen nañ ko génne ñun loolu leen am